أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey nu toll ci sunu téere borom bi tabaraka wa taala toll ci suura al araf ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñetti aaya aaya 70 71 ak 72 mu nekk ñetti aaya yu ñu sunu borom di jàngal ñeenti mbir yooyu ba ci jiitu mooy ixtijaaj al musrikina ala sixati batilihim bi fiili abaihim wa ajdadihim mbokk yi sunu darsu tey dananu wéral bu baax a baax a baax gën noo dëggalal gën noo leeral gën noo saxal ñi démb ak ñi tey sorante wunu ndax aaya yi nekk sunu kanam tey dañ koy firi mu mel ne léegi léegi la wàcc xoolal sunu dars tey mooy ixtijaaj al mushrikina bokkaalekat yi ñooñu doon dendale yàlla ak leneen daan bokkaale yàlla su leen yonent bi waxoon waaw yéen lii ngeen di def moom jaadu wut di xam nga luñ koy dalilee lan mooy seen dalil luñ koy wërale ñun dañoo fekk sunuy baay ak sunuy maam di ko def kon ñun dañ koy def loolu kese mooy dalil amul leneen tey ki xëy di sotti at ci atelier ndox fajar xëy rek ubbi atelier bi di sotti ndox soo ko ne yow lii nag mu ne waaye lii laa fekk démb rek vendredi ci suba balaa may dem jumaa am na benn seenu télévision boo xam ne li may préparé xutba yëpp maa ngi koy xool benn waaye di ci def waxtaan di daganal gàllaaj waaye lan la dagale ne gàllaaj gi mooy fii lañ ko fekk sunuy maam ak sunuy baay di ko def kon dara nekk ci démb yéeféer yi ak bokkaalekat yi suñ daan def lu jaaduwut alquran wàcc yonent bi di leen ko tere da ngay dégg ñu naan ñun sunuy ndey ak sunuy baay ak sunuy maam lañ fekk ñu koy def kon ñun mënuñu koo bañ a def te looloo fi nekk mboole musiba yi ñuy def ci réew mi koo ko fi tere ne ko lii jaaduwut lim la koy wérale mooy sama baay ak sama maam lii laa fekk ñu koy def léegi sax nee na loolu yakaadu yakunu sunna dem na ba nekk sunna lu ndey ak baay daan def ak ay maam ak ay aada tey sunna la ku ko deful bokkoo loolu tey sunna la fil umam wa shuub peuple yi ak xeet yi tey foo dem ci xeet yi tukulóor yi séeréer yi joolaa yi manjaag yi olof yi nag koo dem ak ay musibaam boo ko nee lii mu ne la sama ndey ak sama baay wala ñu xool dëgg bi yàlla wax wala ñu xool diine bi lu mu wax waaye déedéet ñun daal lii la ñuy fekk sunuy ndey ak sunuy baay di def ñun loolu la ñuy def kenn mënu koo dindi loolu danañ ko jàng tey wa huwa taqlid nag al mazmum loolu nag mbokk yi loolooy toppandoo gu ñu ŋàññ toppandoo am na fu muy baax waaye am na toppandoo goo xam ne kenn mënut a fexe mu baax ñun dañ ñoo sant dañ ñoo sant ñu toppandoo waaye toppandoo goo xam ne toppandoo ngumba la moom dañ ñu koo tere sant nañ ñu ñu toppandoo wax dëgg yàlla ndax yàlla wax na noonu toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sant nañu ñu toppandoo toppandoo ngumba mooy sunuy ndey ak sunuy maam li lañ doon def ñun loolu la ñuy def loolu moom dañ nu koo tere ñaareel min xam min xamqil kafirin istijaluhum bil adab wa mutalabatihim bi yàlla daf nuy won tey ñi nga xam ne ay yéeféer lañ dof gu ñu dof ak ñàkk a xelu gu ñu ñàkk a xelu loola leen yóbbee suñ leen di wax mbugalum yàlla au lieu ñu tuub ñaan yàlla yàlla musal leen ci déedéet dañ naan na wàcc waaye na ñëw nanu yàlla waaye na asamaan toj ay doj loolu la fii sax léegi loolu la ñuy wax boo dee yàlla tojal ay doj yooyu la ñuy wax tawal ay doj wala defal nangam waaye na yàlla xar géej gi waaye na mbugal mi wàcc na asamaan këpp suñu kaw loolu la yéeféer yi daan wax démb ñu tey ñi tamit loolu la ñuy wax rek loolu nag ak ndof la nit moom bu xamoon yàlla xam meram xam mbugalam suñ ko koy wax dafa war a daw tuub jéggalu yàlla waaye warta wax na mbugal mi ñëw ndax mbugalum yàlla xejul ci ay doomu aadama bis bu nekk yàlla won ñu ay misaal ci ay dëkk yu mu mbugal mu nettali ñu ko ci alquran ñu ciy teg suñuy bët guddeeg bëccëg ñoom aad ñoom samud ñoom firawn ñoom hamaan ñoom qawmu tubba ñoom ashaabul ayka ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom bés bu nekk ñu jàng ci alquran yàlla mbugal na leen te du mbugal mu ndaw moo tax yàlla mbugalam xejul ci ay nit kon bokk na ci dofuk yéeféer suñ koy wax mbugalum yàlla danaan na ñëw ñetteel bu ñuy jàng tey mooy alihatul wasaniyin mujaradu asma la haqaiqa laha yéeféer yi ñi lànk bañ a jaamu yàlla seen xërëm yi leen teree jaamu yàlla ay turi kesa la tur ñoo ko yat ñoo ko peinture ñoo ko rafetal utal ko tur ba pare di ko jaamu foofi dem nag ci àddina bi foofi dem ci àddina bi ñay jaamu lu dul yàlla ñoo ko créé bu dee lu ñuy tabax la ñoo ko tabax bu dee lu ñuy yett la ñoom ñoo ko yett bu dee lu ñuy dessiner la ñoom ñoo ko dessiner ba pare utal ko tur topp di ko jaamu ay turi kese la in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allahu biha min sultaan sun borom nee na ay turi kese la yéen a ko defar ba mu rafet teg ko fii di ko jaamu wala ay xalaat la wala ay ay ay ay ay yéen yéen a ko def waaye amul lenn lu ci yàlla def kon ñii nga xam ne ay jaamukati xërëm lañ ay tur kese la ñuy jaamu dara du ci dëgg xeer wu ñu yett la wala ciment bu ñu tooyal wala ab table bu ñu dessin wala ñu foto ko defar ko ba mu rafet tudde ko ab tur commencé di ko raay wala di ko sujootal wala di ko wala di ko màggal wala wala wala mu ne waaye xam ngeen ne loolu lenn du ci yàlla lenn du ci jëriñ amul lenn lu ciy lor du dundal du rey du dundal du rey kon mbokk yi dafa war a leer alquran lim ñuy jàngal lépp a leer naññ amul lenn lu ci lëndëm waaye tey li tax nu mel nii nga xam ne duñ déglu yàlla duñ déglu yonent li tax tey sunu dund métti mooy ñàkk gëm ne alquran waxu yàlla la suñu xamoon waxu yàlla la nu nangu ko gëm ko di ko dund kon musiba yi nuy dund tey kenn du ko dund ñeenteel bu nuy jàng mooy qudratullahi taala wa lutfihi tatajalla fi ihlaki aad wa injaai xuud wal muminin kàttanu yàlla ak mën-mënam day leer waxtu wu nekk ci ay yonentam yu mu yónni rawatina yonent yàlla Huud yàlla yónni na ko ciw xeet bu tudd Aad nu lànk sunu borom jël mbugal jël ngelawam mbugal leen mbugal mu tar mbugal moo xam ne amul kenn ku ko mun a empêcher amul kenn ku ko mun a téye yàlla mbugal leen bëccëg ak ay guddi yu ne fàng yu leer nañ amul kenn ku mun a riposter kon loolu kàttanu yàlla la yàlla kàttanam xejul ci doomu aadama moo tax yàlla yàkkamtewul inna allaha la yumlil abd yàlla day bàyyi jaam bi rek muy def lu ko neex muy cëppi cëppi di tëb di bonde bu ko yàlla ne nuus dootul rëccati chaque jour ñu gis ngand mu yàlla ne nuus wàcce ko cheikh abdul hamid kiski day wax ne fa kam min malikin rufiat lahu alamat mu ne fa lamma ala maat dañuy jàpp nit di ko yëkkati di ko takkal ay garaat di ko takkal ay ndomba tànk di ko yëkkati di ko yëkkati yàlla nee na ñu yëkkati ko ba mu kawee ma wàcce ko te su ma ko wàccee kenn dootu ko yëgalaat wala ñaata nit ngeen gis ñu takkal leen ba seen dënn yi fees ndeyjoor ak càmmoñ ba mbagg yi fees après yàlla tekki lépp soo ko bëgg a gis garaat yooyu soo ko bëggatee gis xam nga fooy dem ci photo bi waaye dootoo ko fekk ci dënn waa ji ñu takk ko ci ci photo nga koy gis de ah kon yàlla ngoog kon sunu borom kattanam ak lewetam bés bu nekk mu feeñ ci alak gi muy alak xeet yi nga xam ne dañ koo lankal bés bu nekk mu nañu fa amma bés bu nekk mu nañu inna fi zalika la ibra bés bu nekk mu nañu la ayatin li qawmin bés bu nekk yàlla diñ joxoñ ay baaraam gis nga firawna bi ko yàlla alagay ba pare lu mu wax inna fi zalika la ibratan liman yaxsha kéemtaan a ngi noonu de ku bëgg a waaru xoolal firawna rek mi taxawoon fii démb naan maa yàlla ana rabbukumul aala taxaw fii démb rek di bàkk naan ku ma fi déggati nga naan yàlla nga danaa la mbugal maa alimtu lakum min ilahin gayri yàlla mu ne fa axaznaahu fa nabaznaahu fil yammi wa huwa mulim qissa firawna ñaari mbir yu doy waar a ngi ci firawna ak Muusa loo xam ne loolu dong dong dong dong àddina bi yëpp waroon nañoo gëm yàlla ci diggante firawna ak Musa keroog bi yàlla di mbugal firawna boobu firawna nan la toll boobu firawna fan la toll ci doole dama leen di laaj ah moo yoroon àdduna bi yëpp ci loxoom nee na man maa yàlla ku fi waxati di nga dee ñëpp ne pat ci lan la ko yàlla mbugal ah ci ndox yàlla bi muy muccal Moussa ci lan la ko muccal boobu Moussa ban doole la xool leen rek yëpp yàlla la yam la wax falqihi fil yammi yàlla ne yaay Moussa sànnil Moussa ci ndox mi yàlla mu ne firawna fa nabasnaahu yëpp ndox la mais bi yàlla di musal Moussa boobu Moussa ban doole la dama leen laaj liir bu juddu léegi ñu tugal ko ci kees léegi sànni ko ci géej gi léegi yàlla mu ne géej gi bul ko laal firawna takk ndomba yi gën a garaaw ci àdduna puissance yëpp la jiite yàlla mu ne ndox mi yëkkati ko ba ci kaw dóor ko ci suuf ah yëpp ndox mi la waaye kan moo jox ndox mi ndigal mu musal kii mucc mbugal kii ah yàlla Moussa dafa feebaroon mu ne yàlla dama feebar de yàlla mu ne ko waaw mu ne lu tax ngay may seetaan ba may bëgg a dee yàlla mu ne damaa bëggoon nga xam ne man maay faj garab du faj waaw mu ne waaw bismillah yàlla mu ne ko pompali muus boobu garabu garanaat bii mu ne waaw mu ne ko jël benn doom nga lekk Moussa jël ko dagg ko xar ko dindi doom yi lekk ko daal di wér mu tane ay fan ay at ay weer mu feebaraat même feebar mu dem rek dagg lekk affaire bi gën a garaaw mu ne waaw yàlla yow man ma feebaroon barki démb man la damaa feebar nga ne ma daggal garanaat bi nga lekk ma dagg garanaat bi lekk ma lee ma wér tey jii ma feebar ma dagg ko ma lekk ma gën a feebar yàlla mu ne dama laa bëgg a wan ne du garanaat bi man la wa iza maritu fu yasfini du lii nga lekk du lii nga naan du docteur bi yàlla la kon mbir mi yàlla la géej gi géej gi yàlla alage Muusa Firawna moom moo moom moo rëccal Muusa te wax dëgg yàlla ñoom ñaar kan moo waroon alku ñoom ñaar ku waroon la ah liir bi kay wax dëgg yàlla moo waroon dee xoolal kële ni mu toll ak armée bi mu àndal keroog bani Israël armée bi la Firawna génne armée bi nekk ci kanam ba Moussa tiit Moussa gestu yàlla ne yàlla Firawna day génn tey de mu ne bu génnee bu la toppee ma topp ko Moussa génn Firawna topp ko yàlla topp leen ñëw ba ci géej gi Moussa jël yat bi dóor ci géej gi yàlla mu ne ko jëlal sa yat bi nga dóor ko ci géej gi fadrib bi asaakal bu mu ko dóoree ci géej gi fan falaq mu xotteeku bu mel ne ay montagne yi xeer te ci biir géej la yàlla mu ne Moussa jàllal Moussa jàll bu mu demee bay génn mu ne day tëj géej gi mu jàpp ci ñaari cat yi mu ne nii cat bi ak cat bi mu ne da koy tëj yàlla ne ko watrukil bahre rahan bàyyil géej gi sa yoon nekk ci arrièreal watrukil bahra bàyyil géej gi allahu akbar mbir mi du yow rekileen Moussa rekile Firawna dugg ba mu duggee ba yàlla xam ne ne dugg na armée bi topp ko yàlla bàyyi leen ba ñu nekk ci digg bi nga xam ne du ñu avancé bala ñuy génn dee bu ñuy arrière bala ñuy génn dee yàlla mu ne montagne ndox mi nañ wàcc ñu seen chariot yi ak armée yu mu yoroon yëpp géej gi di tóoj di dóor ci suuf te xam nga lu doy waar dara génnul lu dul moom ñëpp a dee waaye géej gi daa lekk lépp moom kese la yàlla ne génnal tey da nga ne woon yàlla nga tey ñëpp danañ la tiim ñu gis sa biir bi naan ndox ba ni put sa bët yi buqiiku jën yi lekk ko ak sa tuñ yeeg sa nopp yi ak sa sexe bi ñëpp danañ la tiim xam ne doo yàlla ba waxuma sax ñi ñi waxuma sax jamono jooju waaye ba ñun ñii nu ngi koy tiim ku ko bëgg a tiim léegi taala sa portable rek nga def firawna léegi ñu indil la ko mu ne laaj nga xool ba doyal ndeysaan daal di fay sa portable dem tëddi ñun sax gis nañ ko walla te yàlla ba mu ne ko dinaa la génne dina ko ne dinaa musal sa yaram bi firawna kañ la deewoon kon loolu rek da waroon naa tax nu gëm yàlla dinaa la génne musal sa yaram nit ñi tiim la xam ne doo yàlla ndax yàlla du dee te yow da ngaa dee nii loolu ñaata at bi ko yàlla waxee léegi al yawma nunajjika wa bi badanika li takuna liman xalfaka aya ñan ñoo nekkoon liman xalfaka ñan la nun nii yàlla nee na ko dinaa la génne ba ñii ñëw sa ginnaaw di nga nekk kéemtaan pour ñoom ah mais kenn waaruwu ci loolu mooy wax ci nit ñi dañuy ñëw gis ko ñëwaat gis naa Firawna terminé ñun ñii dañuy connecté wu léegi gis ko gis nañ Firawna moo ngi nii pare nañ ci lan lañ ciy jàng amul luñ ciy jàng ak fi mu tolloon ah fu mu tolloon démb ci mbew ci réew ci doole ci kattan di def lu ko neex léegi léegi nii lu mu mën ah kon ana lu mu doon jaay loolu dars la mbokk yi incha allah bismillah loolu moo nekk sunu darsu tey ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ñetti aaya yooyu qaalu ajitana linacbuda allaha waxda wa nadara ma kaana yacbudu aabauna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله
sammaytumuha سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين barakallahu fiik صدق الله العظيم jazakallahu xayran nanu la yàlla fayal yiw sunu borom nee na xoolu gaaña nee nañu ay dañul di ñu nettali histoire yonent yàlla huud alayhi salaam fa haahum ulaa'i gaañaa ngi nii yarudduuna ala daawa ala daawati huud ñoo ngi nii di pousser di delloo di bañ nangu woote yonent yàlla luut ñooñu nga xam ne ñooy mala ñooy mbooloo moomu nekk ca biir koñ ba ca dëkk ba waxoon nañ al mala ñaata la ñuy doon loolu la mbokk mi waxoon keroog bi ñu nee al mala mu ne gang bi gang gang koñ boo dem am na gang ay gangu pa ak ay gangu meer ak ay gangu jeune ñooy bañ lépp lu baax li ci dëkk bi ñoom ñoo koy bañ ñoo koy jiite waaw ñooñ ñooy mala gang qaalu gang ñu ne yow xuut ajitana ndax dang ñoo bëgg a indil li naabudallaha wahdahu yow da nga bëgg ñu jaamu yàlla kese kese kese non vraiment yàlla kese loolu la ñuy wax Sénégal li Sénégal boo waxee yàlla ñu ne non waay booy yéen dimbali leen ñu waay yàlla kese kese kese da ngay dégg sax yenn barab yi ñu naan yàlla kese dafa di tax ah yàlla kese kese rek dafa di tax boo koy jàpp muy rëcc a jiitana ndax da nga noo dikki da ngaa ñëw ci ñun dara indiw la rek lu dul nun li naabudallaha wahdahu nu jaamu yàlla rek duñ ko bokkaale non non loolu mënul nekk moom kese kenn du wax keneen ndeysaan wax sax bu wax conférence bi sax booy wax ñu ne ah conférence bi day waa ji dëgg-dëgg yàlla rek la doon wax waaw am na benn conférence ma fekk woon man maa ko doon def de maag benn waay ñi wax ba sonn ba pare rek beneen waaye ñëw rek daal di détourner affaire bi jaar feneen di nga gis ku daw ñëw ne affaire baa ngi doog a neex fii ku ku bëgg lu neex da ngay wax diw ba pare xolal xam nga lu tax Sénégal garaaw waa ji bi mu waxee loolu mbooloo bi yëpp a màbb di may waa ji xaalis naan ko nii di ñu romb nag di jéem a naqar naan nii lu ne ñu jox ko waa ji ma ne ndeysaan réer baaxul réer yonent bi doon na wax ne al jahlu asaddu min al kufr réer moo gën a bon sax nekk kéeféer te gis nga Sénégal suñu leen bëggee wax dëgg mooy dañoo réer islam daa jaar nii ñu jaar nii soo ko waxee ñu ne ñii ñii yaa kii kii li muy wax nii ñun ñuy julli quatre-vingt-quinze pour cent musulman loolu lañ lay wax waaye ku dégg aaya yi xam ne dañoo réer te xoolal aaya yii nii firi nii dafa mel na ni nun lay waxal lii nii kañ la wàccoon septième siècle suñ koy wax nii mu mel ne moo ngi nii ci biti léegi léegi ku génn gis ko teg ci bët yonent bi bu mu ñëwee di wax lan lañ ko wax aji tana ndax dang noo dikke sa mission mooy li na'budallaha wahdahu nanu jaamu yàlla rek wa nadara ñu bàyyi maa kaana yaabudu abaana ñu bàyyi sunu bàyyi luñ doon topp buy loolu mooy lan fii fii luñ ñuy wax ñun de tontu leen ma fii luñ leen di wax waaye yow da ngeen a bëgg yéen yéen démb ngeen fi ñëw seen sikkim yu ndaw yi seen tubéy yu cëkk yu bon yi ngeen naan ñu ay waaye xolal gis nga loolu lañ lay wax wax xas la ba nga bëgg dem alaxira loolu la nuy wax da ngeen a bëgg a ñëw pour ñu bàyyi sunuy maam yi li ñu doon def loolu nag du fi amee waaw fii mag ñi benn takk bu ñu doon def ñu ne ma naa def bayaan ma def bayaan ba pare rek benn paa jël ndekke paa bi dafa mer ci li ma doon bayaan mu ne waaw gis nga fii da ngeen di sonn rek aye fii mag ñi liñ fi indi gaay daj ji li ma waxoo léegi mu pare man leen jox leen ma micro bi li mu daaj kay foog ñu daajaat ko moom nee na mag ñi alhamdulillah waaye sunu mag ñi ñoom it am nañu ay mag magi saxaaba yeeg yonent bi kay ñoo leen mag ñoom it léegi ñaari mag yi yonent bi ak sunu mag ñi ku mag ban mag lañ ci war a déggal ban mag la yàlla wax nañ déggal ci alxuraan loolu mooy wax bi ba pare li ci doy waar mooy ñoom dañ lay jéem a jaxase sax ak nit ñi yenn saa yi fekk ñoom mag ñi ñuy tiitaroo sax ñoom mag ñi dañoo jaar nii ñu jaar nee laahil azim mag ñi fëy lañ jaar ñoom ñu jaar nii ñoom ñoo nekk seen i bànneexi bakkan rek bëgg a làqatu ci ginnaaw mer mag ñi démb wax naa ko juma ne Sénégal dañuy nëbbatu ci ginnaaw sëriñ si gëmuñu kenn seen bopp lañ gëm déglu leen aay bu baax bi huut ñëwee lan la ko gaa yi tont yow da ngaa bëgg nu jaamu yàlla kese ñu bàyyi wa nazara ñu bàyyi maa kaana yaabudu abaauna la sanu bàyyi doon jaamu yow loolu nga bëgg yow sunu maam yi lañ doon def bu ñu xëyee suba dañuy sotti ndox ci buntu kër yi sotti ndox ci oto yi sotti ndox ci place yi ah dañuy takk ay gàllaaj ba ne këj ay ndombaaki lam bu ñuy waat dañ naan barke diw yow nga ñëw fi naan loolu kenn du ko fi wax yow yow yow yow problème nga fi bëgg a indi mais ñun mënuñu bàyyi loolu gis nga loolu ak li huut doon wax démb ak li nekk fii ba lan mooy différence bi wax leen te lii kat nitu huut ya ñoo ko doon def huut kañ la woon waxuñu sax waa Quraysh déedéet nit huut ñoo doon def lii avant yonent yàlla Muhammad di ñëw la nit ñi doon wax lii soo leen ne jaamu leen yàlla ñu ne yàlla kese kese non loolu mënu nekk yàlla ak aha so weli allah e mais est-ce que waay est-ce que bu neexee yàlla ak diw loolu moom Sénégal boo ko fi waxee ñëpp kontaan waaye yàlla kese sun borom sax wax na ko wa iza zukira allah wahdahu soo waxee yàlla kese ismaazat qulubu allazina la yuminuna bil axira nga gis kanam yëpp ñëkk ñuul mer ñëpp ñàng ñu ñu waaye wa iza zukira min dunihi allahu akbar soo waxee keneen rek est-ce que gars yi commencé di mbëkk di mbëkk ay porlamp ñii di yuuxu ñii di pourtant yàlla lañ doon wax sànq ba léegi de yàlla ki moom jaam ñi ko kay moo jara yuuxu ko kay moo jara jooy ko kay moo jara wéqu ko kay moo jara jël sa bopp rek sànni ko ci teen ndax yàlla lañ wax waaye foofu da ngay gis ñëpp mer ñuulal kanam dara du nekk seen yéene rek lu dul fekk la fi nga toog rek waxuma la pes la mais dóor la jaase sa bopp bi dali faaj waaw ndeysaan waaye boo waxee keneen nag ku dul yàlla xoolal isa la yàlla utilisé isa xarfu lan la fujaa yi ci mbetteel nga gis leen ñu kontaan yastabsiruun kanam yi leer yi kawas skey gars yi kawas génne waaw làmb daj ñuqi daje ñuqi joxe waaye lañ lay wax parce que keneen lañ wax alxuraan a ngi nii nag borom bi nee na Huud ba mu ñëwee wax gars yi nañ jaamu yàlla kese ñu ne ko yow da ngaa bëgg ñu jaamu yàlla rek ñu bàyyi maa kaana yaabudu abauna lu sunu bàyyi doon jaamu loolu nga bëgg ñu bàyyi léegi ñun mënuñu ko xam nga lu xew faatina indil nu bi ma taiduna li nuy dig ci mbugal in kunta mina sadiqin su fekkee yàlla la yónni xolal bul sax dem ba suba naa samaan bi daanu léegi ñun ñoom ñu dee waaye yow gaan yow da ngay sóob Sénégal la nga da ngeen di wax rek bu dee yàllaa la yónni xoolal gëmunu la na daaneel asamaan bi nag léegi moo ngi nii de ndeysaan lan moo jekkoon bu dee yàlla la yónni alhamdulilah nangu nañu gëm nañu samina wa ataana waaye bu dee yàlla la yónni ñoo lànk na mbugal mi ñëw loolu laa doon wax sànq yéeféer mooy koo xam ne day ñaan yàlla mbugalam wàcc mbokk yi mbugalum yàlla xëjul ci ay nit mbugalu yàlla xëjul ci nit te doomu aadama dara xëjul ci moom de ñun ñi ngi nii toog ke dara xëjul ci ñun ku ko weddi léegi booy ñibbi ku ma weddi laa la wax nañuy dañuy jël léegi dars suñuy ñibbi ñun ñëpp boo génnee fii rek jëlal benn xeer dugal sa suufu dàll nga sol dàll bi nga dox nga dem ba sa kër bul dindi xeer bi nag loolu donc du ma joxe beneen misaal ñun ñi kan ñoon ñoo fi yor chaussure fermé ne ñëkkati seen loxo non damaa bëgg samedi bi di ñëw ñëpp tontu ma ne def naa ko yéen ñëpp bu ngeen génnee rek jël leen benn xeer rek dugal ci biir dàll bi ngeen sol dàll bi mu dëgg ngeen dem ba seen kër nag bu leen taxaw kenn mënu ko ñaari seconde wuut booy xaar leen ma nga simi daal xoolal xeer bu ndaw boobu xejul ci yow kon mbugal mu yàlla fu mu jëm ci yow jëlal beneen misaal bëñ bëñ moo gën a tuuti ci nit bëñ d'accord ngeen cëru doomu aadama yi bëñ ci gën a tuuti wala bu bëñ bi yëngatoo léegi wala mu metti léegi nga ñibbi soo demee doo reer da ngay tëdd ñu ne la lan la nga ni bëñ bay metti naan nga garab doo dem hôpital bëñ kese la yàlla yëngal bëñ nga ne pat ñemet mënatoo wax mën mënatoo wax bëñ su gënee diire ay jour ah allah su gënee diire ay jour mbokk yi ah allahu akbar bëñ su gënee diire gën a diire foofu kay nag léegi nag moom léegi muuma nga nag léegi bu kay gémmiñ ngi dootul ngaan nii rek ku la gis kay léegi dootoo waxati ay yow lii la la kon nag yàlla xejul ci ñun ñun ay mbindeef lën ñun dañoo néew doole kon nag lan mooy solution waa ji nee na yéen seen borom moom ngeen ne yéen yéen yàlla mooy seen borom ba pare moom yàlla day fett nit ñi di leen jam flèche am yim ñuy jam nag te moom nee na mooy suñu borom mu ñuy jam ay flèche mu ne ko yan flèche mu ne ko flèche su nattu yi yàlla daf ñuy jam ay flèche mu ne da ngaa bañ flèche ci dal la mu ne waaw mu ne jege ko ku lay sànni ay flèche boo ko jegee flèche yi dootu la dalati bu nit di la sànni flèche nga ñëw ba ci kanamam toog dootul mën a sànni di ndax yaa ngi ni toog ci wetam kon loolu mooy wax ji na nekk ci wetu yàlla li muy sànni du nu dal jeex na tag gis nga alquran a ngi nii di wax ñii ba huut ñëwee di wax ak ñoom luñ ko tont dañ ko ne bu fekkee wax nga dëgg na asamaan daanu na géej gi débordé na yàlla wëlbati suuf si yooyu la ñuy wax fii qaala ba mu ba loolu amee rek moom huut mu ne qaala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun xaala mu ne leen xat te dëgg-dëgg waqa a li ngeen doon ñaan am na tàbbi na mbugal maa ngi ñëw waqa alaykum dana tàbbi seen kaw fu muy jóge min rabbikum ci seen boroom lan rijisun mer moo xam ne mbugal moo xam ne wa gadabun ak mer moo xam ne kenn xamul nu mu toll moo tax gis nga yàlla nu mu leen mbugalee yàlla yónni ngelaw li ci ñoom saxaraha alayhim saba layaalin wa thamaniyata ayamin xusuuma mu ne fatara alqawma fiha sar'a ka annahum ajazu naxlin xaawiya allahu akbar mu ne fahal tara lahum min baaqiya ndax gisati nga ci ñoom ko fi des ngelaw li yàllaa ko tàggat rek mu nekk ci dëkk bi buusewul guddi ak bëccëg lu génn rek ngelaw li day yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf lu samp mu simpi lu taxaw mu naawal amul luy jóg même boppu tàndarma ya taxawoon xam ngeen ne garabu tàndarma fenn doom ngay xam ne garab la garabu tàndarma la mooy lan bopp bi garabu tàndarma mooy garab goo xam ne boo dindee bopp bi rek moom nit a yem nit boo dindee bopp bi ah jeex na garabu tàndarma boo dindee bopp bi rek terminé xam nga am na yeneen garab yoo xam ne boo ko daggee day saxaat génnewaat ay car garabu tàndarma boo dindee bopp bi pare na moom nit a yem booy teggi bopp bi pare na léegi nag yàlla nee na ngelaw li bu mu ñëwee daa teggi garabu bopp tàndarma yépp la teggi bopp yi teg fële mu ne ka annahum ajaazu naxlin mu ngi ne ay garabu tàndarma yu taxaw yu amul bopp garabu tàndarma bu amul bopp lu muy jëriñ xam nga luñ koy def pour lampe foofu lañ koy fekk mu toog ñu jël ko def ko ab pour lampe wala ñu def ko mbaar bu dee boo yii fu la ñu def ko ay camp ndax amatul njëriñ noonu la yàlla mbugale waa aad mbugal moo xam ne ngelaw la yàlla yónni ngelaw ngelaw yooyu dafa xaj fii ah waaw kon kay xam ngeen ni xool leen ngelaw li ñëw Amérique rek su ñëwee li muy yàq ah te Amérique kese la yem te sax ci yenn état lay nekk du nekk lépp waaye gis ngeen après lam fay bàyyi léegi nag bu dajoon àdduna ah yàlla ngelaw li moo ko moom xejul ci nit géej gi nag bu yàlla ne géej na daw ñëwaat dañu dem gore def conférence ba ñu jeexal am na benn oustaz bu ñu àndaloon ñu jox ko muy def commentaire mu ne yéen waa gore war ngeen ragal yàlla yéen a ngi nii war ngeen ragal gis nga bu ngeen jaamu yàlla yàlla géej gi lay ëffal ak yéen imaam bi daal ne waaye kii daal kii warul wax kii moom dafa soxor trop pourtant wax na dëgg de waa yàlla moom géej gi gis nga yàlla tabaraka wa taala mbindee fa wala mbugalam moo xejul ci nit xolo yooyu yoo yoo ñetti yoo ci biir sànke rek doo nelaw ñetti yoo ci biir sànke ñu bàyyi la fa ak ñoom buñ motee fukk nag yaag fukki yoo ci biir néeg amul làmp amoo làmp amoo dara fukki yoo rek yaag fukki yoo ci biir néeg rek nga xam ne am nga problème dootoo nelaw da ngay taal lamb bi mujj toog naan nii yooyu naan la doo gëmm de bu soob yàlla doo fi nelawee booy nelaw booy nelaw ñuy ñëw te xoolal yoon nu mel allahu akbar kéemtaan il faut ñu am benn journée boo xam ne yoo la ñuy wax mooy lan yoo li ci yàlla def yow ñaata bët la am yow ñaata laaf la am yow ñaata xol la am foo ñu def ci dars moo tax du hasard yàlla di ko wax ci alquran xoolal néeg bi lu mu lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm yow day ñëw ba ci sa biir noppi ne la vurr ku ko won nopp bi fii la nekk te dafa lëndëm de yow gisoo yow bi te moom gis na la nëbbatu nga dugg nga ci biir mbàjj bi dugg ci biir sànk bi mu ne la maa ngi lay gis noppul te sonn maa ngi ñëw da ngay mujj taal lamp bi naan waay sànk bi xaw ma yooyu fuñ jaar allahu akbar nga sàngu ñu ñëw ne la mu réekul si meekul ñun ñoo ngi nii di ñëw dañuy lekk waaw ñun deret la ñuy lekk ñun duñ lekk mburu duñ lekk cox duñ lekk ngooñ ñun deret la ñuy lekk gis nga te ñu ngi dund allahu akbar kon yàlla mbugalam moo xejul ci nit te yàlla lu mu jël pour mu nekk ci yow mbugal rek pare nga loolu dina la mbugal bu yàlla yónnee ndox nga am problème bu yàlla yónnee sedd nga am problème bu yàlla yónnee tàngaay problème am bu yàlla yónnee rabu àll yi sax problème am xoolal nitu firawna yi balaa yàlla di mbugal firawna yàlla yónnee na ko ay teeñ yónnee ko ay mbott yónnee ko deret yónnee ko njéeréer lu nekk la ko yàlla yónnee ba mu nekk juróom ñeenti kéemtaan firawna lànk mbott sax yàlla yónnee ko ay mbott mbott yi dañuy fees ba kenn dootul wax boo ngaa ngee rek mbott plongé feew na cabax ci gémmiñ gi boo toggee mbott yi plongé ci biir cin bi boo taalee safara si mbott yi plongé ci safara si ba fay ko ñëpp am problème yow da nga doon yaakaar ne mbott dafa ragal safara nga taal mbott yi fay safara si nga teg sa cin teg ci diwlin mbott yi plongé ci diwlin bu fees cin bi après léegi loo mën da nga yaakaaroon ne sax da nga yor sa yat di rey boo reyee jeex na nga tëdd mbott yi ñëw plongé sa kaw ba kenn dootu la gis ñu ne Moussa ñaanal ñu yàlla bu demee ñun dinañ gëm xam nañ ne lii nag mbirum yàlla la Moussa ñaan ñu ne ko yow ngandum magicien nga yow yaa mën a njabar tus lañ la gëmut mu ñaanaat beneen aaya ñëw noonu la yàlla def ba mu nekk tis a aayaat ay kéemtaan yoo xam ne yépp yàlla yóbbu na ko ci firawna ñu lànk ne gëmuñ ñooñu kan moo leen gën a wowle ah sunu borom nee na gaa yi daal di ñaan yàlla mbugal mi ne mbugal mi ne ñëw borom bi mu ne leen am na qad waqa alaykum min rabbikum rijusun wa ghadab waa yéen sax yéen atujaadiluuna nii ndax da ngeen di werante ak man fii asmain ci ay tur yoo xam ne yéen ñi sammaytumuha yéen a ko tudd antum yéen ñi wa abaukum ak seeni baay yéen a defar seeni yëf peentir ko tuddee ko benn tudd tur di ko jaamu Sénégal ñaata ñaata ñaata mbir lañ fi defar di ko jaamu te ñun ñoo ko defar ñaata wax leen ko boo demee penku réew mi am na fa nga dem gànnaar am na nga dem bëj gànnaar am na nga ñëw sow am na ñu nekk dañuy defar rek di peinture ñii di bënni ay teen ñii di gas teen ñii naan sam-sam la bu añ màkk ñooy day dem ñii naan ñii naan ñii naan guy gi fii lañu yettoon di fanaan ñii naan ku nekk te ñoo ko defar de ñëpp ñoo ko defar kenn la ci yàlla indilul dara ñoom ñoo ko defar ba mu rafet yaa nit ñi ñëw di raay dañ dem màkk ndeysaan ñu ñëw kër gi yonent bi juddoo rek maire yi daw ya waay yonent ba ñii indi seeni kaala ñii dindi ku nekk di raay kër gi naar bi ne ma subhanallah axi haza ciment haza ciment ma fihi baraka ciment mawjud fi Sénégal ñu ne lu mbax ma ne naar bi nee na lii ngeen di raay ciment la ciment la mi ne waay waay nga topp fële nga naan ñu ciment la wax na dëgg de ciment la bu ma ñëwee léegi di raay karo yi lan laa raay dara laa raay de bu ma ñëwee léegi moo tax ne sax dañuy sëlmal julli ma gis ku naan di raay si jaada bi ma ne wala ki si jaada bi lan la wala ma gis muy bind si jaada bi kay nag de bindoo ci wax dëgg yàlla ne nii Ouh, Sénégal ak ñoo bëri problème léegi ki bind ci siyaada boobu lan la bind dama leen rax rek maa ngi bind après ngeen wax ma lan laa bind yéen a ngi koy gis fii sijaada moo fi nekk di léegi liñ bind fii lan la nga gis nag ku dëgër fit bind ba pare di bëgg a diw vraiment doy na waar daal doy na waar loolu ak nga def li la yonente bi wax lu ëpp barke soo salma lay waxal allahuma anta salaam ñaan yaa ngi ni allahuma anta salaam wa minka salaam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram allahuma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik nga def yooyu li la yonent bi sant ak nga nekk di bind ak di dessiné ak di raay ak di fóon ak lu gën a noppale mais ñun dañoo lànk comme ñii rek yéen da ngeen di werante ak man atu jaadilu na nii man ma ñëw ne yàlla ma yónni yéen amul lu ngeen def lu dul ngeen indi ay tur fi asma in ay tur yoo xam ne sammaytumuha yéen ñii yéen a ko tudd yéen antum yéen ñii wa abaakum ak seen baay yi leen fi jiitu woon yéen a ko fi tudd seen baay yi ñoo ko commencé woon yéen ngeen ñëw rafetaatal ko peinture ko ba mu gën a rafet karole ko def ci ay barrière ne ñëw leen ngeen ziyaare ku ñëkk ñëw sànni ci xaalis bu ngeen demee waa kër ga jël ay peel boros ay saaku xaalis denc ngeen yaakaar ne dara la yéen ñii yéen a ko créé yàlla nee na indiwuma ko antum wa abaakum lan la ca teg mu ne ma nazzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewu ci benn lay amul benn dalil yéen ñu koy def amuleen benn dalil ci lii ngeen di def ne loolu la sànq rek maa ngi koy wax sama benn enseignant muy werante ak xale yi ne malaaka yi malaaka day juddu juddu am na benn wirdu boo xam ne nee na boo ko wirdee wirdu bi day naaw ba kaw asamaan daal di jur malaayika malaaka yooyu jur ay malaaka malaaka yooyu toog di wirdu wirdu boobu di nga am tiyaaba ko loolu wirdu boobu moom wirdu moom wirdu boobu moom ban wirdu la mu ne mooy mu wax mu wax mu wax wirdu bi mooy salaatu nangam mu ne diw moo ko wax léegi nag moo xale yi ñu jàppante comme maa ngi leen di dégg ma bàyyi ba débat bi tàng ma doog cee dugg waaw ma ne leen lu njëkk mooy malaaka moom du juddu malaaka du juddu comme nit de ndax malaaka du lekk du naan du nelaw malaaka amul soxla malaaka amul biir malaaka du sëy ajsaamun min nuur laa yaakuluun wala yashrabuun wala yanaamuun wala yataraw loolu nu muy amee doom ibaadum mukarramuun ay jaam la yu yàlla bind yu sell yàlla ngi leen bind ci leer du ñu lekk du ñu naan du ñu nelaw du ñu sëy kon nu ñu nu ñuy amee doom nu muy juddoo loolu benn la ma ne ko beneen bi mooy amul benn salaatu bu nit di wax muy naaw jëm kaw asamaan di jur malaaka mu ne loolu loolu diw moo ko wax ma ne ko luy dalil bi al isnaadu min ad diin ci diine soo waxee dara da ngay wax fii la ko yàlla wax wala yonent bi su ma leen ne julli leen ñu ngeen ne julli wuñ mooy ko julliwul boo dee da ngay dem safara da ngeen may laaj dalil suñ ne woor leen ah lu tax ñuy woor ngay indi dalil joxe leen azaka lu tax ngay indi dalil aje leen màkka lu tax ngay indi dalil takk leen ñeenti jabar ah déet te nga bàyyi ñu takk ba doyal déet lu tax nga indi dalil ah voilà ci islam boo waxee da ngay indi ne ah lii la waaye Sénégal moom amul dalil waaw diw ndeysaan am na benn waaye bu def benn vidéo bu doy waar vidéo bi def indi coow ci Sénégal fan yii ah xam nga dañu ne yonent bi dafa bula woon fële après tey mu ñëw fii zone benn waaye mu ne bu leen ko ñaawal dafa rafet yonent bi daa rafetoon fee tey mu ñëw fii ñaaw loolu waruñu ko wax yonent bi gars yi mer daa wax na dëgg de wala dëgg de ñu ne yonent bi dafa bulo woon fee mu ñëw fii mu zone mu ne bu leen ñaawal yonent bi dafa xeesoon fee ñuul fii bu leen ko ñaawal moom dafa mës a rafet gars yi mer ñu ne ñu ne ñun lay wax ñun lay wax Sénégal boo waxee rek ñu ne ñun lay wax yéen la yéen a wax yéen la ñu ne yéen la jeex na waa ji daa jaare ni yéen ñu ne sàccee du man de yow la parce que yow la yow yow yaa- yow yaa weddi loolu mooy wax bi kon il faut ñu delloo suñu xel diine dafa am cëslaay soo waxee ba pare da ngay wax nit ñi fii la ko yàlla wax wala fii la ko yonent bi wax wala lii la ci ba waaye di wax rek xam ngeen ne alxuraan ni mu gënee silaabeer noonu la sunu téere yi gënee alxuraan loolu ana dalil bi yàlla dafa yónne yonent bi ci yéeféer yi ne ko tuub leen yéeféer yi yonent bi tuubloo yéeféer yi yàlla yónni diw ci jullit yi ne ko tuublool jullit yi jullit yi tuub nekk ay nàngam ñun loolu lañ duñu ay jullit ñun li nekk moo gën jullit dis allahu akbar ah ñun li nekk moo gën jullit ndax jullit yi ñoom yéeféer yi rek lañ gën ñun nag ñoo gën yéeféer yi ak jullit yi yéen ay lan ngeen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xoola baat yi nu mu gravé te pourtant Sénégal lañ koy wax de wala wala diw moo bind yàlla déggu leen ko ah wala ah c'est kon nag jeex na xam ngeen ki ko wax gis ngeen ko dégg ngeen ko diw moo bind yàlla yenent bi sax diw bu muy gis yàlla diw moo ko dimbali pour mu gis yàlla ah ba pare léegi ñuy wax li yëpp nag ñu bëgg Sénégal nekk ci jàmm nag allahu akbar xanaa lu bon bon boog boog lii boog ku ko wax sax yàlla dina la mere ah ña waxoon wax yu ndawee sax yàlla dana wa laqad qaalu kalimatal kufri wa kafaru baada ñun waxuma la kalimatal kufri waaye wallahi wax nañ Sénégal loo xam ne daaneel na asamaan billaahi wallaahi wax nañ Sénégal loo xam ne yàlla wëlbati na ci suuf ci ay xeet yu njëkk wax nañ Sénégal loo xam ne yàlla dawal na ci géej rey ci ay nit wax yu garaaw la ñuy wax fii te kenn du ko wax ñeme wax nag dañ koy wax ba pare boo buggee taxaw wedd ñu ne non sa waay yow yow yaa amul ak dégg rek kii li muy wax fu leer la ko teg fu leer la ko teg waaw yow gis nga yéen yéen da ngeen a yéen yéen mooy waxi lan diw moo bind yàlla loolu loolu loolu kenn du ko weddi loolu kan moo koy dégg te doo ko weddit ku ko dégg weddi woo ko ab yéeféer nga alxuraan ni mu gën a silaabeer alxuraan dañ ko jël di ko tollale ak silaabeer silaabeer dañuy tëkkale ak alxuraan waaye ku gëm ne alxuraan ràkkal la moom mun ngaa gëm ne silaabeer ak moo gën a silaabeer alxuraan comme ràkkal la allahu akbar xam ngeen ràkkal ku xam ràkkal bi na yëkkati loxoom kan mooy reere fii ràkkal kuy reere ràkkal fii na yëkkati loxoom mu ngoog ñu def ñu ñu ne ñu ne alxuraan ràkkal la te yéen a ngi nii kenn du ci lekk ràkkal xanaa bu ñu ne woon ceeb la sax ñu ne ah kon de baax na ndax danañ lekk ceeb wala ñu ne mburu la sax wala ñu ne mayonnaise la sax waaye ràkkal kuy lekk fii ràkkal wala kenn nanguwul yëkkati loxo kon loolu baaxul naka lañ koy waxee alxuraan alxuraan waxu kan la yàlla dina wax ràkkal allahu akbar téere boo xam ne xarf yi ay tiyaaba la laa aqulu alif laam mim xarf walakin alif xarf laam xarf mim soo ne alif laam mim am nga fanweeri tiyaaba ba ban téere moo toll noonu soo ko jàngee ba mokkal boo faatoo ëllëg yowma xiyaam dañ lay wax iqra wasad jàngal yéeg dernière aaya bu nekk sa dënn foofu ngay dëkk ay aaya yoo xam ne yonent bi nee na ku mu nekk sa dënn doo dugg safara loolu dafa am ci benn téere iqra'ul quran fa innahu yaati yawma alqiyama shafihan li ashaabi shafian li ashaabi jàng leen alquran ëllëg day ñëw di ramm ñi ko doon jàng soo bëggee gën ci nit ñi da ngay jàng alquran xayrukum man taallama alqurana wa allamahu sunu borom nee na subhanahu wa taala lii ngeen nekke nii ma nazala allahu biha min sultaan amul benn dalil bu ngeen ci am waaye fantaziru xaar leen man huut maa ngi nii inni maakum min al muntazirin maa ngi ànd ak yéen di xaar léegi mbugalum yàlla wàcc seen kaw bu leen sax sonn fa muy wax ak ñoom rek mbugal ma yegsi yàlla mu ne fa anjaynaahu ma musal ko waaye du moom rek de walladina maahu ak gaa ñi àndoon ak moom gis nga moo tax chaque jour nit na farak dëgg nit na ànd ak dëgg ab yonent bu yàlla yónni soo bëggee rëcc àndal ak yonent ba atiu llah wa atiu rasul keroog ba mbugal mi di wàcc yàlla ba musalee xuut ñan la ca teg ña toppoon xuut kon ñu nit buñ bëggee mucc nan topp yàlla topp yonent bi ëllëg yowmal xiyaam yàlla bu rëccalee yonent bi ñu rëcc te yonent bi sikk sàkk nekku ci ne tey rëcc ah même yàlla ba muy wax yonent bi na nga jub waxu ko moom kere fastaqim kama umirta wa man taaba maaka jubal xocc yàggaa yi ànd ak yow mu ngoog mbokk yi fa anjaynaahu man yàlla maa ko musal ginnaaw ba ma wàccee mbugal mi nag laa ko musal wa ma maahu min almuminin ak gaa yi ànd ak moom gëm yàlla bi rahmati minna ci sama yërmande boo xam ne yoom laa leen defal sécurité gis nga yàlla yàlla du nit yonent yàlla nuux nitam yo ba leen yàlla di alak est-ce que yàlla dafa jël nuux denc ko ci benn néeg ba pare doog a alak nit ñi ci biir mbugal mi la yàlla di mbugal nit ñi di di musal gaal gaa ngi nii di daw ndox maa ngi wàcc ndox maa ngi génn gaal gaa ngi nii kon ñoom ñoo ngi ñi ngi ci sécurité ñoo ngi seen mbugal mi nit ñi di ñi leen di mbugal wala keroog ba yàlla di mbugal góor jigéen ña mbugal mi dafa nekk nii yàlla di musal yonent yàlla luut keroog ba yàlla di musal yonent yàlla Muusa mbugal mi daa nekk nii yàlla di musal Muusa Huud tamit noonu la ngelaw li daa nekk nii di wàcc di yëkkati nit ñi di dóor ñoom ñu ngi ci jàmm wala ci biir mbugal mi la yàlla di musale ñi nga xam ne ñoom la bëgg a musal fa loolu ñu bàyyi ko xel yàlla subhanahu wa taala moom moom mbir mi keroog ba yàlla di musal Ibrahima ci safara si dafa bàyyi ba safara si fay mu doog koo musal ci biir safara si la ko yàlla fekk ne waqul naa yaa naar kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim mbugal maa ngi nii safara saa ngi nii ibrahima maa ngi toog ci biir gaañaa ngi rokkos matt yi safara baa ngi tàkk ñoo ngi sotti essence bi muy gën a boy ibrahima maa ngi toog di naan ataaya gaañaa ngi xam rek sol leen rokkos leen booy baa ngi nii ñuy sol rek booy bi toog di naan ataaya ba matt yi jeex tàkk affaire bi nekk doomu taal ah lu ngeen xam ba xambaat leen waay ñii ni kii deewul kii dara dal ko di li nu mu nekke mu ne leen yàlla fa aradu bihi kaydan fa jaalnahumul asfalin yàlla mu ne dañoo pexe seeni pexe ñoom ñëpp ma wàcce leen ba ñu suufee ndeysaan allahu akbar laay sunu borom mooy ngand ku ko noppee gëm rek alku nga sunu borom dafa nekk ngand ba nga xam ne suy def dara da ngay xam ne kii ngand la xoolal safara nit nekk ci mënoon na ne géej dawal nga fay ko wala mu ne asamaan gaawal nga taw gaawal balaa ñuy rey sama waa ji déedéet yàlla ne safara si lak tàngal lakkal dafa lu neex waaye xoolal nekkal jàmm affaire bi di tàkk di tàkk di tàkk ba matt yi jeex waa jaa ngi toog allahu akbar loolu moo ne yàlla ngand la xoolal bu muy sauvé Moussa bu mu nekkee liir ak bu muy dugg ci géej xoolal bi muy sauvé yonent yàlla Muhammad xoolal bu muy sauvé Yunus ci biir jën bi jën gi won na ko mu nekk ci lëndëm ñetti lëndëm fii zulumati salasa lëndëmu géej lëndëmu jën bi lëndëmu mbàqu jën bi yàlla sauvé ko allahu akbar ah yàlla ne jën bi demal ba tefes nga génne ko nga wa nga wàcc ko mu wan ne ko ci biir géej gi dem ba tefes bi daal di koy génnee kooko yàlla kenn mënula ko kenn mënu ci dërëm kooko yàlla kon kuy gëm gëmal ko yàlla moomu ni mu sauvé ñooñu la ñu sauvé mucculooñu suñuy yaay ëmb nu ci ñetti lëndëm yàlla daan ñuy rëcciloo tey ñoo ngi fi toog man da ngay gis ndeysaan xale bi liir bu judd ba pare ñu indil ko benn téere fii benn téere fii benn téere fii nga ni lii nag ñu ne lii moo koy aar xoolal ki ki ko génne fii ci ñetti lëndëm kooku mënu ko aar koo xam ne bi mu waree judd kenn mënu ci dërëm waa kër gi sax mënuñ ci dara dañoo jël ndaw si yóbbu hôpital bu mu yegsee hôpital hôpital xool ko ne ko eh delloo leen ko kër ga kii kat ñoragut jëkkër ji ne du ma ko delloo de ñu ne ko delloo ko ñoragut mu ne du ma ko delloo ndax kii vraiment bàyyi leen ko fi mu toog ñu ne waaw kon tëral ko fële kon kay du ñoom yàllaay toog ba mu neex ko ba xam ne ñëpp ñëpp sonn nañ ndaw si ci boppam sonn na waa kër ga ndeysaan kenn nelawul ñëpp a ngi nii nii anamu ma nga fa amagul doom ah amagul de waa ñu ñaan yàlla rek ni ko yàlla rek ñëm ne ni ñëpp ne teg kenn du nelaw jëkkër ji ñëw ñibbisi du nelaw de wala mu toog fa ak moom ñëm ne nii lu xew ñu ne yàlla yàlla nee na maay toog ba mu neex ma ma ni uxruj ayuhal mawlud bi xaqil malikil maabud ma daal di ubbi yoon bi liir bi daal di ñëw summa sabila yàlla moo ubbi yoon bi de bu fekkoon ne du yàlla bu liir bi ñëwee ba pare nañ ko fa delloowaat mës ngeen ko gis ah chaque jour ma wax leen kuy togg ataaya mu xiim lëwal bi ñorut ñu ne ko lëwal bi ñorut suñ ko ko joxaatee nu mu koy def da koy delloo ci baraade bi tegaat kuy togg ceeb mu yekk ba pare ñu ne ko sa ceeb bi ñorut dafa wow koŋ delloo ko ko nu muy koy def da koy delloowaat ci cin bi defaat ci ndox lu tax liir bi mu juddee bu mu juddoo motut delloowuñ ko waat question la ah mënuñu woon ubbi rek ñu ne eh taxawal te daatal nan la dell nañ ko delloowaat foofu ba mu ba kii ba kii mot ko nañ ko delloowaat ba mu mot. allahu akbar sunu borom mooy ponkal benn yoon nga rek ngay jaar foofu benn yoon lañ fay jaar dootul ñaar te yàlla moo ubbi yoon boobu xoolal doomu aadama ni mu toll léeg-léeg liir juddu ñu pesé ko mu nekk 5 kilos léeg-léeg mu nekk 10 kilos te yow yaa ngi ni mënoo lekk benn kilo ceeb nga nga gàddu 10 kilos ci sa biir di dox ak moom mu nekk sa biir bi ngay tëdd ak moom di liggéey ak moom di dox ak moom booy nelaw muy nelaw booy lekk muy lekk boo yeewoo mu yeewoo te mu nekk sa biir bi di tourner trois mois yu njëkk yi mu kàbbar six mois mu rukkoo neuvième mois mu sujjóot pour génn su sujjóotul rek musiba am bépp liir buy juddu jébi génnul bopp génnul musibaam da ngay dee wala sa yaay dee wala docteur yi damma dammate la pour sauver sa yaay mooy liir yi ngeen gis ñiy juddu ndeysaan ñu damma seen loxo parce que loxo la ñuy indi wala tànk dañ leen di tourné waat il faut bopp jébi rek mooy génn bopp ñu daal di xëcc mu daal di génn lépp nekk jàmm mooy sujjóot bi trois mois yi mujj yi léegi nag bi ngay judd nga sujjootal yàlla ba nga mucc nga màgg nag nekk ponkal kaay julli aw ma aw ma temps quoi aw ma temps aw ma temps quoi non xaaral ba koor quoi koor gaa ngi ñëw koor gi ah boy koor ma ñëw quoi na ngeen mootal place di sabat walla mu ne maa ngi lay xaar yàkkamtiwuma wiiri wiiri doomu adama moo yàkkamti waaye yàlla mu ne xuliqal insaan min ajal doomu adama moo yàkkamti waaye yàlla yàkkamtiwul borom bi nee na man maa ko musal fa anjaynaahu wallazina maahu bi rahmati minna waaye wa qata'na daabira alladina kazzabu bi ayatina am na benn borom xam-xam bu mag bu nekkoon pikin su daan fiir ba yegg ci aaya bu mel nii wa qata'na wax ju bon lay wax soo waxee mu ne yàllaa ko wax yàlla du wax lu bon yàlla du saaga wa qata'na daabira alladina kazzabu bi ayatina yàlla nee na maa dagg ginnaaw gaa yi nga xam ne dañ maa weddi gis nga yàlla boo ko weddee mu rey la dagg na sa ginnaaw ah nan la ko daggee mooy dootoo am doom boo xamante ne dinañ la wax dinañ la tudd jeex na looloo gën a gaaw ndax dañ lay fàtte kenn dootu la tuddati moo tax weddi yàlla musiba la yàlla mu ne ñi nga xam ne ñoo ma weddi noonu laa leen def allazina ñi nga xam ne kazzabu ñoo weddi bi ayatina sama aye yi wa ma kaanu muminina nekkuñu way gëm yàlla nee na noonu laa def dama dagg seen ginnaaw ñoom yépp nit ñi fàttaleen mu ne ahlak naahum alak naa leen bi xaariqati riix ci benn ngelaw call mbeer boo xamante ne moom laa ne vëf seen kaw ngelaw loolu tu dammir kulli shay lépp la dammate bàyyiwul dara fa asbahu laa yura illa masakinuhum nga romb dëkk ba gis buntu kër yi ubbeeku fenêtre yi rideau yi naaw nga ne asalaamaaleykum kenn du la fay ñépp dee nañ doo dégg sa xaj bu mba wala ginaar guy kokorikook lépp lu fa doon dund dee na kër yi kënd ak ñoo taxaw lépp la yàlla rey garab yi sax yàlla da ko rey mu ne kër yaa nga ne waaye doo fa gis kuy fay nuyoo ñëpp dee nañ ah kon nag te sunu borom boobu defoon loolu dafee jóge dafee jóge da koo mënatut ah kon mënatu ko ah la ngeen noppi wallahi sunu borom boobu tey la ko gën a mën tey la fi gën a neet du fi jóge te du fi mës a jóge kon nag li fi nekk mooy comme ñun ñooy ay jaamam ñun noo war a góorgóorlu nekk ci li ko neex gëm ko comme ñi mu waxee nii wa ma kaanu muminin ñii ñoo ma gëmul moo tax ma def leen lii kon ñun nan ko gëm ñu noppalu loolu mooy sunu darsa tey ñoo ngi jégglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu